koy sant bu baax sama rak la waaw ok. ay léegi nag muudu loolu am na solo léegi boo gisee ma ma ma woo ñi parce que ñi xam nañ leen ci làmb ji te dañ koo fekk xam nga xale yi dafay baax ñii bu ñu leen di jegeñ dañ leen di gën a dimbali parce que ñii la ñuy roy nit ki nag su lay roy bu jógee nga jóg lii defe naa exemple la ci mbay gu gi lim def ak si ana carrière waa gis nga moom sax mën naa taxaw sama ginnaaw <laughs> maa ngi lay bégee. Babacar ñu ngi lay ziar di la nuyu. xale yi di leen roy ba tax ñuy def lu mel nii lu ngeen leen di wax ci lu gàtt. waa ñoom ñëpp dañ leen di ñaax parce que diggante Réfane boox ak Kër Samba Kane ndaanaan bu ne jaar na fa xam nga ne ñun bu yàggu rek bëri nañu foofu ay menti fois bëri nañ fa te champion yi ngay dégg fii yëpp ay guy geeg ñoom ñëpp fa la ñu jaar kon buñ demee ba nga xamante ni yàlla dogal na ñu boole suñuy rak si suñu biir euh, dañu koy def wàllu sportif la ñuy doxal rek te xam ne lii comme mbay guy gi bu amee bés tey ñu ñëpp a jàpp mais xale yi nag bu ñu tolloo si bëree dañu war a mën a bëre quoi waaw ñu def ko affaire sportive di leen ñaanal man nag sama rak laa indi waaw kii sama rak la wax dëgg yàlla xale boo xamante ni dëggal na magam dama koy ñaanal yàlla may ko ndam quoi. carrière ngi nii borom kott yi. dégg itam yaa ngi bëre dakaar xale yi di reef bëre dakaar tey lu ngeen leen di ñaaxee parce que biir Refane la ñuy bëre lépp di bawal. waaw Refane moom yàgg parce que bëri nañ fa ba ñëw fii mun na ne bàyyaguñu sax bëri Réfane waaw mais du ñuy ñaanal du leen di wax rek ñoom ñëpp serplay ñëpp benn lañ quoi na rafet waaw na rafet quoi parce que sa doo xoolee carrière de ak ku muy bëreel yëpp samay mbokk lañ kuy bëri sama mbokk la mais serplay quoi lu gën a jege gën a damay ñaanal carrière doo yàlla na ko yàlla sama borom may ndam waaw mbay kaay tëj ko kon la demee ba tey rek li ma lay wax rek yéen yàlla def na yéen a ngi bëree Dakar parce que dëkk ba ngeen njëkk a ba ñëw Dakar tey di fi bëri xale yi loo di ñaax parce que bis boobu am na ku ciy bëri duppee la euh, maanaam jël boppam tudde la ko. fils de Mbaye Guèye waaw di la nuyu Babacar di nuyu grand bi Modou ki tëgg làmb ji di leen nuyu li wax ne loolu buñ ko gars yi defee lu rafet la parce que sunuy rakka fa nekk ñun ñii sax fa lañ jaar ba toll fii tey ba tey ñuy bëre esaat sant yàlla liy wax ji nañ rafetal seen biir rek. man sama dooma ciy bëre jël léppam jox ma ko kii moom fu mu mën di bëre ci àdduna maa ngi ci wetam te léppam maa ko yor waaw léppam du ma bàyyi dara mu seet incha allah te yàlla dina ko may ndam di wax boo yëpp benn lañ nañ rafetal daal làmb Bawol la ñëpp xamante nañ seen biir na lépp rafet rek waaw na rafet waaw. mais ndogo yi mbaa xam ne dinaa ñëwaat. coojubul maa ngi lay xaar lépp a ngi fi di la xaar incha yaayo dafa am lu ma fate quoi parce que fii teere kasoor la man kasoor laa dëkk xam nga. waaw fii terrain kasoor la mbir yëpp dama leen di ñaan ñoom ñëpp ci ñëw ci yar ak tegin après bu ñu jógee bu ñu jógee ci lam jooju incha allahu rabi dañuy teg terrain Castors fii fii nu nekk nii incha allahu rabi pour ma wax ko mbir yi bu baax ma am sama benn rakk bu ma fàtte aussi Fallou Fallou Laga dama ko fàtte te aussi Fallou yoot ci ñu monté combat yi la bokk boo yi monté combat yëpp aw ma seen fay barke Mohamed maa ngi di ñaanal daal li nu bëgg yal na leen ko yàlla defal ànd bi mu dëggu quoi comme ni mu gi dëggoo nii yàlla gën ñoo jàppale bu baax mu gën a dëggu ci barke yonent bi ci barke Sëñ Abdou Karim kon Talla Ndiaye noonu la demee woon lambi bawal la doomi bawal la ko tëgg ay bawal bawal la kon ci jàmm jeex si jàmm sport moom ku nangut ñu la ciy daan wala ngay bu ci dem yaa ngi dégg reefa nag ka jóge reefa nag ka jóge réew maaw ko jógee xombal ak kabaak altu ndangal maak ndondol ak foo mën a jógee l'essentiel que lépp bawal la bu ñu ñëwee Dakar dootuñu bëre ndax mbay gi du bëreeg waa réew ma parce que mënul ne loolu bawal la kon daal yéen xale yi koy def fexe leen mu commencé ci jàmm jeex ci jàmm que le yàlla na yàlla def jàmm ba beneen yoon taal